actif balu ak bokk yépp ñaan itam ñépp nu gën a balante ak ndax lu war la lu war la ci man ci tolluwaay bii ma tollu ak fii ma nekkal sëriñ bi xam naa kon dañ koy tënk rek Euh, ngi gën a sant sant bu baax a baax a baax suñu borom mi nu booleeg sëriñ bi sant sëriñ bi mi nga xam ne fàggul nañu lépp di suñu lépp tey ak ëllëg di sant it ci li ak ci tolluwaay bi ci dox yi yoon wi wa tabaarakallahu sëriñ bi fàggul nañu lépp bàyyi woon nañu fi njabootu boppam gi ñu nekkal ko ci nam ko bëgge di ko sàmmal euh, loolu lépp nag euh, sëriñ bi moom xel day mën a root kem kàttanam rek xam ca lam ca xam jéem ko dund itam ca nam ko namme ci nun damay wax ne fii yoon wi toll bëgg sëriñ bi ak doyloo kii rek ak doyloo ko rek moo ko fi moo ko fi indi yoon wi sori na lool fa tabaaraka la yaatu na waaye dara indi yóbboo ko fa gannaaw pàgguteef sëriñ bi lu dul bëgg sëriñ bi ak doyloo ko waaye nag xamuñu ko dunduñu ko sëriñ bi nañ ko mën a xame di ko jéem kem kàttan il faut nga sóobu yoonu yàlla foofu nag moo taxoon may junju eh, dama war a wax rekk waaye wax ji eh, lu mat a tey la ginnaaw sëriñ bi ma ne su ko xam ci lu sóobu yoon yàlla soobu yoon yàlla nag moo koy tënk ci ñaari baat rek ñaari anam rek sóobu yoonu yàlla il faut que jaam bi mu futti mbubbum addunaam futti mbubbum addunaam mooy lan il faut nga dëddu àdduna dëddu adduna li mu lay dara daray adduna dut la saf foofu rek laa ci yem nag kon nu góorgóorlu bu baax nu góor góorgóorlu bu baax gannaaw ba nu santee ba noppi nu sax dàkk ci góor góorlu di xam li nu fi indi mu jaamu yàlla rekk jaamu rek yàlla rek moo nu fi indi leneen andi nu fi andi wunu fi kon nu góorgóorlu bu baax ci jumtuwaay yi nga xam ne moo nuy won ne noo ngi jéem suñu wartif mu jaamu yàlla jaamu yàlla da ci jiitu wii ci ndigal di bàyyi tere te yàlla tax sa kem kàttan la ca dolliku mooy jéem xam lu yàlla bëgg ci noonu jéem a xam lu yàlla bañ ci noonu di jéem a nekk ci la yàlla bëgg sunu kem kàttan di jéem a daw suñu kem kàttan suñu xelu bëkkan la yàlla la yàlla bañ kon di def ndigal bàyyi tere def li yàlla bëgg euh, daw daw li mu bañ loolu ala kulli xaalin mooy jumtuwaay jumtuwaayu jaamu yàlla te jaamu yàlla rek nu fi andi kon nu góorgóorlu ci bu baax a baax a baax suñu kem kàttan am naa lu ma mën a wax xam naa ko itam waaye wax daa war bu jógee mën a am njëriñ ndax wax joo xam ne ñaar rekk koy ñaar ñaar ñaar koy teewe ñaara koy teewlu ki xam ak ki xamul ki xam te nun ñépp ci am xam-xam day des wax joo xam ne nag eh, ki xam bu ko déggee bu ko jàppee waxi nit ki xamul itam bu ko déggee wax dof sax saxare koy jàppe kon wax lu mat a tey la ndax la ca gën a am solo muy mu am njëriñ loolu xëy na moom gàllankoor ci ci wax waaye noonu mu ko ubbee rek ci sóobu yoonu yàlla bala ngaa xam sëriñ bi il faut que nga sóobu yoonu yàlla waxuma laa dund ko te sóobu yoonu yàlla sóobu yoonu yàlla moom bunt bi il faut que nga summi sum futti mbubbu adduna mi nga xam ne ñun ñëpp moom la ñuy indaale il faut que nga futti mbubb moomu loolu mooy lan il faut nga dëdd adduna te daree adduna dut la saf nga door a sóobu yoonu yàlla foofa nag foofu nag la la rawaate bi nekk ku gën ku gën a sóobu ci yoonu yàlla muy gën a xam sëriñ bi ku gën a sóobu yoon yàlla moo lay tane ci mën a dund sariñ bi kon eh, mbir la mu mu rëy xam màggaayub sunu boroom màggaayu sunu boroom mu rëy rëy boo xam ne xamee suul fu mu yem loolu loolu moo tax sëriñ bi dox doxin dox doxin bi mu dox diggam ak boromam def ni ko li ko boromam digal ci ci yonent bi mu def ko defin ba u kawe mooy suul ne du xëy na eh, doxina ko doxin woo xam ne ko ca àgg doo ko mën a weesu muy jaamu borom ak topp yonent bi mel ni mbindeef mënut a weesu li ci sëriñ bi ni sëriñ bi doxe mel ni du malaayka du yonent bu leen yoxu bu leen yoxu yoxu mel na mbindeef mu weesu dox ni sëriñ bi doxee jëm ci boromam wal bi ko dox dox dox ni mu doxee digg ma digg ma yonent bi mel na mbindeef doxin la woo xam ne mel na mbindeef ko weesu foofu laa ma laa ci mën a yem kon nu góorgóorlu rek eh, sëng ba ngeen ji bindeef mu jëw liñu sëriñ bi ci xaddis ba dafa wax ne amul kenn koo xam ne jëfam sa jëf mën laa yóbbu àjjana loolu màggaay sunu borom la xam ba mu xam moo tax mu wax ko amul kenn koo xam ne si jëf mën laa yóbbu àjjana mënuñu ko ñàkka laaj ñu ne ko ah, ba ci yow mii mu ne ba ci man loolu sa borom nas ma ci mbarum yërmandeem kooku nag moo wax loolu waaye sëriñ bi moom daa nekk ci gannaaw yonent bi ñaanal mbindeef yépp irham jami al wara wax mm-hmm. kon nag noonu la deme ginnaaw sang bi gën ñëpp mu wax loolu diggam ak boroomam diggam ak diggam ak digg ak ja diggam diggante jaam ñi ak boroomam ginnaaw lu moo ko wax mu ne su ko ñàkk laaj ba xam kon fu nu jëm ak na ni def bañ ko ko laajee dafa wax ne seddi doo xaari bu loolu boroom xam-xam yi moom ñoo ko mën a firi loolu la yonent bi wax man nag ñi ma ko li ma ci dégg moo di danuy dañuy bañ a bàyyiliku te bañ a sàggan cax dàkk nag ci jaamu gu in fendi di wéy ci ndigal di bàyyi tere suñu kem kàttan di bëgg lu baax di bañ lu bon suñu kem kàttan lépp yàlla tax ñu ko def wute gu ngërëmam rek loolu noonu loolu loolu loolu loolu jaam lañ mën a am dañu def seen kem kàttan ba mu waxee ne sa didu wa xaribu borom xam mën nañ ko firi ñoom loolu man na ma ko déggee mooy bu nu bàyyiliku bu nu waaye da caa teg ne kullun mu yassarun la loolu la ca teg waaw ba jaaxle amee da leen wax leen nañu war a def ñu war caa yem kon góorgóorlu bu baax ci li nu fi indi jaamu yàlla rek nu fi indi sunu kem kàttan ñëwee ci ndigal di bàyyi tere di bëgg lu baax di bañ lu bon di jëf lu baax sax ca dàkk daay man di yéene lu baax di wax lu baax di jëf lu baax sax ca dàkk te yàlla tax loolu rek la mooy pexe mi kon alhamdulilahi rabbil alamina sant rek lañ war a def ginnaaw foofu la mbir mi nekk suñu boole noog sëriñ bi sëriñ bi xam ni mu xamee boromam ak ni mu wéyee ci ndigal ndigal boromam ci yonent bi ci diggante boobu mu toll bindeef yëpp mu xool leen ñëpp na ci jàmm ko ti xërëm yeeg yëfar yi ñu sàggan ñeeg ñëpp ñëpp na fi ñëpp na ci biir mu ne boroomam irhamal jamil wara yërëmal bindeef yëpp loolu kàddu yi dama war a wax te am gàllankoor bu mënumaa wax ndax bu ma sañoon boo waxee mu am njëriñ waaye damaa war a wax fii ma tollu fa mag ñi daa àgg naa fa so romb naa sama juróom-ñett fukki at rawatina nag. dégloo leen mën a jariñu dégloo leen mën a jariñu. rawatina ñu tudd ñi mu tudd ci sëriñ bi te ma tuut ca kon war maa wax waaye nag boo sañoon mooy wax day wax day am njëriñ jërë ngeen jëf maa ngi jégalu jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ju ñu am sëriñ bi suñu boom defal na ko coobareem nan ñaan rek mu dina ko dollil muy gën a bëgg sëriñ bi di ko gën a jéem a xam di ko jéem a di ko gën a jéem a dund suñu kem kàttan buñ ko defee daan mucc téeg ëllëg daan texe téeg ëllëg daan defaru téeg ëllëg loolu rek gàllankoor yi ci àdduna ak fitna yi ci am ak ni mu demee loolu loolu dong ci mën a musal te mën na noo rafet njort bu baax am gilu sa am sëriñ bi dana nu musal ci yëpp jërë ngeen jëf. nu ñëpp tàllal nu ñëpp tàllal tàllal ni ñëpp tellal Hallelujah.